nuyul ñu monsieur le maire Abdou Lahad Ka di nuyu le docteur Dieng qui le médecin de district de Touba di nuyu le représentant du directeur de l'hôpital le docteur Souran suma xarit promotionnaire di ko nuyu di ko ziar aussi di nuyu monsieur le président du réseau des cadres du Baol Serigne Modou Diakhaté ak euh, l'ensemble des membres euh, de notre réseau yi jógee fu nekk ñëw teewee activité Mbacké Touba yi di nuyu particulièrement Mor An Gueye nga xam ne mooy suñu point focal ci organisation bi xam naa ne temps yëpp noppaluwul parce que organiser week-end yi c'est jamais simple on a eu à le mais xam naa ne du seen donc ñu koy nuyu di ko sant di nuyu étudiants yëpp ak waa Croix-Rouge yi nga xam ne chaque fois bu ñuy organiser aussi dañuy ñëw jàpp ci journée yi seen journée la euh, di sant yàlla nag bi nga xamee ne lii mooy ubbi activité yi muy conférence bi c'est toujours compliqué parce que dañ koy préférer def la veille mais Touba bu tombee ajuma c'est pas très évident parce que ajuma moom xam nañ ne du jour activité fii ci Touba wante nag programme bi ni mu tëddee moo tax ñu maintenir ko di remercier donc euh, mes collègues médecins yi nga xam ne bàyyi nañ li ñuy def yépp ñëw teewe ko te bi normalement ñi ngi woon seen liggéey wala boog ñuy dallu Euh, ça va m'aider parce que yéen nekk ci gox bi donc euh, li ma leen di ñaan ñoom ñaar ñëpp c'est que bu ñu nekkee ci phase question réponse yi ñu partagé ko parce que xam naa ne lépp lu ma ci mën a répondre lu ma ci war a répondre ñoom ñi mën nañ ko répondre donc euh, xam naa ni am nañ ay témoignages yu ñuy war a indi wala bokk yenn réponse comme ànd euh, daf ñu wax ne c'est en direct normalement conférence bi c'est prévu en français mais bu nekkee en direct xam nañu réalité zone bi mooy majorité yi déglu olof lay la ñuy xaar ñu wax donc on va faire un effort pour wax euh, une bonne partie de la conférence en en wolof. voilà dañoo choisir euh, d'ailleurs kam moo ko choisir hein mais léegi Sénégal foog naa képp koy wax conférence ci problème mu santé yi sa xel dafay dem ci tension ak diabète moo tax ñu choisiroon waxtaan ci euh, tout à l'heure Mor Anne mu ngi introduire daan loolu moo ëpp fii ci Mbacké xam naa ne Touba it beneen problème la fi parce que am nañ quelques données médecins yi dinañ ci confirmer mais aussi li mooy consulter léeg-léeg fii aussi won na ma ne lii véritable problème la diabète ak tension angle bi nag biñ koy attaqué mooy jéem ci waxtaan pour yee ci nit ñi ba mën a moytu ñaari feebar yooyu wala boog bu xasee ba am bu xasee ba installé wu ci yaram nu ñuy def ba éviter muy compliqué wu parce que liñ koy ragal yépp ñaari feebar yi complication yi moo tax moo tax ñuy wax alors pourquoi ñu war ko waxtaane c'est que dafa dafa fréquent ah c'est devenu de plus en plus fréquente parce que tout simplement mode de vie bi changé na mais aussi liñ koy seet dafa gën a bëri ñaar yooyu faut pas en perdre faut pas le de vue parce que boo gaawee ci interprétation rek da nga naan mode de vie bi la mais mode de vie bi rek doyul léegi nit ñi dañoo alerte ci mbirum santé ñu ci bari dañoo jàng seen xel aussi màcc ci mbiram santé wala bokk ñu am ci mbokk ce qui fait que dañuy seet feebar yooyu boo koy seet nag euh, souvent bu amee da ko koy yëg mais aussi mode de vie bi ci la mais surtout li tax mu jara waxtaane mooy euh, programme yi leen di jël en charge dañoo xaw a nekk en retard te loolu ça peut comprendre parce que problème mu suñu réew yi du woon lii ci mbirum épidémiologie du woon tension du woon diabète mais c'est les maladies transmissibles transmissibles par les vecteurs ma ay paludisme mais aussi transmissibles par d'autres voies comme ay sida tuberculose loolu moo doonoon les véritables fléaux yi nga xam ne juste bi ñu amee suñu indépendance ñoom la gouvernement yi defal programme pour ñu xeex xeex nañ leen ba xaw leen a gañe ñi ngi fi mais wàññeeku nañ bu baax mais entre temps nag yeneen yi positionné wu nañ te yooyu amuñu woon des programmes adapté <coughs> c'est des maladies cronique non transmissibles loolu jaral leeral la c'est-à-dire bu xasee ba feeñ ci yaram dootuñu dootuñu wér complètement te loolu jara leeral la loolu mooy lu ci bëri problème yi d'ailleurs euh, dem na ba di ñu indil ñun gàllankoor ñun médecins yi bu ñuy faj parce que am na malade yoo xam ne bëgguñu commencé faj bi ñun ñëpp mën nañ leen joxe témoignage fii parce que dañ naan ñun man kat dañ ma wax ne tension boo commencé faj giirub dund la diabète boo commencé faj giirub dund la donc bëgguma commencé faj bi mais bu xasee ba am il faut nga faj ko parce que boo ko fajul mu aggravé mais li ñuy dëggal aussi c'est que bu xasee ba am am na c'est vrai que boo ko fajul du reculer loolu moom ku ne la da koy sempi teg fële li mu lay wax taxawul foofu moom réew yu développé pays <coughs> en de développement ak pays sous-développé ñoo ci yem sauf yenn cause tension yenn cause yu raar a raar yoo xam ne boo opéré malade bi cause ba dem bu xasee ba dugg ci yaram day sax ba gërub dund boo ko nangoo faj nag du indi problème yi mu war a indi muy complication yi moo tax ñun dañ naan dañ koo équilibré mais guérison définitive ci tension jabet loolu amut loolu nag dañ koy leeral dès maintenant bu leen ci amee question dinañ ci discuter dinañ ci discuter yow comme du wér mooy dafay yàgg ci yaram moo tax moo indi chronique bi tout simplement chronique bi du question gravité parce que ku amee tension amee diabète ñu équilibré la amoo benn différence ak ki ko ameewul te loolu lu jar a jàpp la boo amee tension ñu équilibré ko ci genn garab gooy jël wala ñaar wala nga amee jabet ñu équilibré ko yaa ki ko amul benn genn amul benn différence mais chronique baa ngi fii parce que boo arrêté garab bi mu commencé aggravé wu maladie émergente lañ koy wax suñu réew yi bientôt sax kenn dootu ko wax émergente parce que dañoo sax ñu xam leen mais bu njëkk euh, euh, document médecine yu bari maladie émergente lañ doon wax li tax mu jar a faj aussi mooy euh, bu compliqué gul faj mi cherut comme bu complication yu duggee dafay daal di donc c'est des maladies réellement coûteuses parce que bu ci am benn complication rek faj bi dafay daal di multiplier wu par cinq multiplier par 10 multiplier par cent surtout su complication yu touché xol beeg yooyu dinañ ci ñëwaat mais li jara santé mooy euh, c'est des maladies yoo xam ne dañ leen di équilibrer dañ leen di équilibrer très facilement maintenant avec un deux médicaments euh, garab euh, plutôt signes yi dañ malade bi dootul yëg yu baree bari nekk à l'aise équilibre la ku ne nag équilibre am na ne déséquilibre mën na am ñun nag dañuy waxtaan ci lii pour éviter le déséquilibre avant muy am aussi leneen lu ama ama solo feebar yi balaa ñuy dugg aussi man ngay xeex ak ñoom ba duñu dugg loolu jara xam la parce que dinañ gis ne à part cause yi ngay judduwaale yenn cause yi yu ci bari mën nga koo fanq donc fexe ba fanq ko moo gën sax ngay nekk naan dama koy équilibrer loolu dinañ ci insister deuxième élément prévention bu jara xam tension jabet am na ci yenn yoo xam ne ndono la mais mën nga koo donn te du déclaré woo loolu it lu jara xam la mën nga koo donn c'est-à-dire sa yaay amee ko sa papa amee ko yow nga xam ko am pepp Euh, jàngoro bi ci sa deret maanaam gène boobu mais man ngaa xeex ba du dugg mukk te loolu am na solo xam nga loolu xam ko am na solo parce que ñu bëri dañuy foog ne rek ils sont condamnés man kat sama yaay amoon na ko sama papa amoon na ko waaw bu ñu seetee gène bi mën nga ko am mais man ngaa fexe ba gène bi du exprimer wu parce que ndono yépp question expression ci feebar boo ko joxee condition mu exprimer wu mu exprimer wu sonal la mën ngaa xeex ba du exprimer wu wala buy exprimer wu aussi du la sonal yooyu dama ci insister ci introduction bi pour mu leer parce que après dafay gën a yomb donc jar na waxtaane bu ngeen seetee yi ma fra yi ma ci wax yëpp leneen bi bi tax ñu koy waxtaane aussi te rekab moom teel na ko comprendre parce que conférence bi je crois que def nañ ko xombol y a président six ans sept ans il y a très longtemps <laughs> président ngi ci 6 ans 7 ans xombol. booba waxaguñ lu bëri sax ci oui. voilà gis nga waaw 14 5 ans bon 4 ans 5 ans 13 oui voilà. 13 13. alors 13 déjà ñu ngi ko doon waxtaanee. te waxtaan bi chaque fois dañuy gis effet bi ah. alors boo xoolee ci li ñu tënk ci mor li ñuy wax mortalité morbidité. gis nga 2005 déjà bi ñu koy natt ci àdduna bi yëpp 60 pour cent des décès dans le monde soit 35 millions de personnes lay yóbbu donc du paludisme moo koy yóbbu du sida moo koy yóbbu yii la feebar yi ñuy waxtaane tey ah 60 pour cent boo jëlee population bi yëpp parce que pays développé yi li mu fa yóbbu dafa bëri 28 pour cent de décès enregistrés en Afrique déjà taux bi élevé na bien que cardiologue yi fi mu ne booy wax ñoom. ñu ne la chiffre bi ëpp na ko téeméer yoon mais chiffre yi ñu fi njëkkoon natt loolu la loolu lay indi OMS bi nga xam ne mooy wér wérgu yaram yépp moom considéré na ne la première cause de mortalité dans le monde 88 pour cent des décès dans les pays en développement muy rejoindre li ma doon wax léegi maanaam boo jëlee yokk ci cancer yooyu ñooy évidement de loin première cause en Afrique gis nga deux mille 2030 prévision bi nee nañ 46 pour cent des décès saa un décès sur deux lii rek doyoon na pour ñun ñu koy waxtaanee fu ñu toll sa montre que yii bu ñu jógul xeex na mu waree xeex xeex ba gën sax parce que xeex bi rek euh, doyul su dee su dul xeex ba gën en 2030 nga xam ne presque suba la presque suba la c'est dans dix ans hein ñu ne un décès presque un décès sur deux feebar yi ñoo koy indi donc ça va leneen lu jar a waxtaane mooy évidemment boo gisee ni muy installé woon ni mu bëree bokk ku ci médecine sax boo ko interrogé mu ne la tension ak mooy aussi li ko yombal li ko yombal nag li ñuy wax transition démographique bi la maanaam changement yi am ci population bi caractéristiques yi transition sociale yi surtout transition alimentation bi ak épidémiologie bi mooy conséquence bi alors transition population bi mooy lan en réalité boo koy xool loolu c'est positif système de santé bi xeex nag feebar yu bëri surtout les maladies infectieuses ce qui que espérance de vie bi dafa yokk espérance de wu Sénégal léegi mi ngi ci 65 ans lu bëri ñu bëri boo leen ko waxee dañuy ubbi seen bët mais ça c'est extraordinaire c'est à 65 ans il y a ans mi ngi woon autour de 52 53 pour cent mais maintenant 65 ans la te li koy expliquer rek mooy système de santé bi amélioré xeex ak yenn feebar yi muy muy gën a jëm kanam population bi en ville lay gën a vivre kooku euh, évidemment euh, day indi aussi changement pathologie la population urbaine 43 pour cent en 2015 li ñuy prévoir en deux mille cinquante gis nga projection yi nee na soixante cinq pour cent ñooy nekk en ville problème bi nekk en ville nag c'est très simple c'est que les villes day indi ak accumulation population bi dans un espace très petit sans aménagement te di ngeen gis ne léegi bu may wax lu ci bëri bu ñu aménagé wul jafe-jafe am parce que dañ naan nañu def activité physique nañu def sport nañu moytu yenn aliment yi mais yooyu yëpp dafa nécessité des aménagements te ville moom pour l'instant c'est pas bien cadré dañuy tabax tabax tabax jaaykat yi ñëw teg fu nekk ce qui fait que boo bëggee def marche wala activité physique ça pose évidemment des des problèmes diabète bi installé wu majorité gis nga te lii xam nga lu jara moytu la fi mu ne pays développé yi la woon seen problème mais gis nga projection yi 2025 c'est demain mais nee nañ 75 pour cent des diabétiques von et dans les pays en voie de développement en 2025 pourtant loolu la ñuy vivre <laughs> en réalité loolu mooy suñu réalité suñu suñu pratique de tous les jours ñun ñu ngi koy vivre déjà mais chiffre projection yi ça montre que c'est des c'est c'est de bon chiffres cest à dans six ans majorité diabétique yi ci suñu réew yi lay nekk ça c'est un c'est un grand problème obésité bi di dugg muy ñi nga xam ne seen poids dafa ëpp ça pose des problème moom itam changement comportement yi la c'est une population qui était rurale bu daan liggéey ci tool yi liggéey ci wuti ndox liggéey ci sàmm lu ci bëri déplacé ñëw ville loolu ça intéresse particulièrement Touba te yooyu dinaa ci déglu bu baax suma collègue yi nii particulièrement parce que Touba la population rurale et venue s'installer à Touba et donc c'est devenu une population assez sédentaire ñu ci bëri defatuñ activités yi ñu daan def loolu nag boo ko defee sur une génération deux day am des effet dina am effet ci ñi ñëw sax mais ñi muy gën a amal effet mooy ñi ci topp seeni doom seeni sët seeni jarbaat ak yooyu parce que surpoids bi mën na dugg mais aussi yeneen feebar yi mën na yomb saa euh, Dakar c'est un fléau Saint-Louis n'en parlons pas c'était c'est un grand problème Saint-Louis natt nañ ko dinaa leen jox chiffres yi léegi bu soobee yàlla alors facteur de risque yi parce que boo bu benn feebar installé wu commencé poser ay problème évidemment médecins yi li ñuy njëkk xool lan moo ko indi lan moo ko indi ci feebar yi en terme de facteur de risque lay doon loolu aussi lu jar a comprendre la parce que xam naa dina am ay question yu ciy ñëw ñu nekk diabète lu koy indi mooy accumulation des facteurs de risque tension lu koy indi accumulation facteur de risque cancer même cancer léegi am na ay phénomène facteur de risque donc facteur de risque la ñuy xool boo jëlee facteur de risque nag bokkut ak siburu siburu da naan mais lan moo ko indi ñu ne la plasmodium falciparum donc benn élément ngay cité par exemple nga ne jom bi li tax mu dugg ci nit bi nga ne anophèle femelle bi moom moom moo piqué nit ki mu dugg ko kooku un ngay cité fii nag plusieurs facteurs ngay cité benn ci ñoom mën na indi problème bi mais lu ci bëri dañoo ànd ñaar ñett loolu moo tax prévention bi aussi possible na mode de vie bi ci la mooy changement boobu ma doon wax toog toog moom dafa yomb dafa yomb ci suñ société yi léegi parce que kër ga liggéey bi demee demeetul noonu ba nit ñi di bouger boo demee bureau toog lu yàlla di def sax léegi bureau yi ñu ci bëri ventilé climatisé et cetera bureau bi souvent bu amee escalier nit ñi mën nañu bañ a jël escalier yi or di nga gis dinañ ko conseiller man nga jël escalier au lieu ngay jël ascenseur booy jël yi escalier aussi nga def ko d'un trait mais bañ a nekk di noppalu ci benn bureau pour continuer euh, booy déplacer ville boo fi jël rek booy déplacer léegi taxi yaa nga faak yeneen moyen de transport yu la koy éviter je parle pas de village en village maintenant yoo xam ne Euh, taxi brousse yi la ñuy def donc problème de mode de vie sédentarité mooy bañu a yëngutu bi alcool dina ko favoriser c'est un problème peut-être pas très énorme dans notre pays qui a une bonne composante musulmane mais mi ngi ci cigarette c'est démontré ci cause de mortalité yi d'ailleurs la bokk évidemment diabète bi nekk fii mën a bokk ak tension mooy yi gën a bon mooy comorbidité yi c'est-à-dire ñoom ñaar tase ci kenn nit te pourtant lii c'est de plus en plus fréquent ah hyperlipidémie maanaam yooyu nga xam ne dafa niin niin bay feeñ ci deret ji maanaam deret ji niin bu ñu ko bëggee résumer loolu rek lay wax parce que yenn niin yi ci ñam yenn niin yi ci lu ñuy lekk moom mooy mujj niinal euh, deret ji indi ay cholestérol ak yooyu yooyu ay facteur de risque yow énorme la yu baree bëri léegi ñu xool facteur de risque positif yi loolu liñ ci li ci science bi jaragu jotagu na xool mooy ngay lekk fruits et légumes yooyu it gis nga progressivement c'est abandonné parce que changé nañ mode d'alimentation yeneen alimentation dugg imposé wu imposé par la ville imposé par la mondialisation mais dañ koy wax nit ñi di ree mais lu am résultat la fruits et légumes fruits et légumes nag bu ñu koy wax fii souvent booy boo soog a pare conférence bi nit ñi dañuy basculer ci cherté fruits et légumes mais pourquoi choisir lu cher choisir li sa poche dollool <laughs> tollool loolu rek mooy question bi mais bañ a xool naan lii dafa xew ak lii bu ma ko lekkee ñu warmaal ma wala daraja question daraja la non du question daraja fruits et légumes jëlal légume bi nga war a bi nga mën a jënd jëlal fruit bi nga mën a jënd te loolu boo ko xoolee bu baax siiru en tout cas côté bii ñu nekk Diourbel ak euh, Touba Mbacké fruits ak légumes qualité ñi ngi fii surtout légumes yi nag surtout légumes yi je me demande même est-ce que légumes yi nekk fii léegi gënul légumes yëpp léeg-léeg ñu dollil ma ci damay anticiper ci yenn question dollil ma ci ñu argumenté légumes yi ñu d'accord ne légumes a ngi fii mais lekkuñu ko tellement ñi ne ma engrais bi la mais ban engrais engrais bi aussi faut pas ngay gis rek benn Euh, documentaire bu nekk États-Unis loolu yi beneen problème la boo xam ne mondialisation canaux yi tax na nit ñi du ñu sax jël avis wu docteur Dieng nii du du avis wu professeur Lamine Gueye benn documentaire la ñuy xool wala WhatsApp bi wane ko ñu daal tout de suite appliqué ko fekk WhatsApp bi bi muy wax ne légume bii c'est contaminé par des engrais mais légume boobu du légume fii loolu aussi lu jaral leeral la fii certes am nay engrais mais demewul ni ko ñële di waxee hein par à outrance donc fruits et légumes on insiste yëngatu dinaa ci ñëwaat lu am solo la euh, sew sew kooku moom heureusement mentalité yi changé na je crois que y a de moins en moins de personnes yu daan docteur bindal ma ordonnance pour ma am yaram en tout cas di ngeen ma jox exemple aussi alors que ñun bi ñuy commencé man bi may commencé prescrire c'est-à-dire vers les années quatre-vingt-dix loolu laa daan gën a dégg que maintenant bindal ma ah bindal ma ordonnance ah dama bëgg jàpp tuuti et cetera et cetera surtout jigéen ñi loolu wàññeeku na bu baax a baax a baax dañ ci war a sant tour de taille bi meeg loolu ànd léegi nga xool fii graphique bi boo ko xoolee di nga seetlu li nga xam ne moo nekk di xew ci àdduna bi te Afrique rëccu ci au contraire Afrique ganam ñu xooloon yi nga xam ne ñoo doon problème ci pays en voie de développement bi yu vert yi la léegi lu rouge lii nekkoon problème mu pays développé bi alors liñ seetlu wantaay gi mi ngi déployé wu léegi di tëj si bi wan fii bu njëkk dañoo égalité woon wala sax bii tuuti rouge bi nag dafa commencé di gën a gagné progressivement yu vert yi parce que ñi ngi vacciné ñi ngi lutter contre les moustiques moustiquaires mais malheureusement yii waroon wàññeeku te mënoon yii mënoon na wàññeeku yii di wàññeeku mais bii day wàññeeku bii di yokk loolu nag li ko indi tension la jabet ak surtout cancer yi ak pollution yi pollution oto yi même chose moo nekkati fii lii dañ ko natt ci année rek boo ko xoolee nii gis nga boo xoolee fii 90 profil bi nii la woon quatre 2020 nga xam ne kii bi ma koy njëkk projeté il a cinq ans ou six ans dafa meloon ne lu soli mais bu may xalaat ne léegi suba la te kii bi bi ma koy njëkk projeté ñu ngi doon wax daan il faut lutter il faut lutter parce que mais gis nga ni mu gaawee dañ doon wax 2020 mais projection 2020 yi la ñu trouvé exactement fii mu toll maanaam gis nga les maladies non transmissibles gis nga leen ni ñu yokkee te xoolal fii dafa tuuti woon les maladies neuropsychiatriques def ni yokk les traumatismes yokk léegi nag yi nga xam ne ñoo doon infection yi yooyu ñoo diminuer mais gis nga bii di pousse jëm ci ko nu ñuy def ba freiner ko fii nag mooy question bi mu bàyyi pantam bi loolu moo tax ñuy def communication yi même chose je passe alors ñu dogg nag ci explication yi léegi parce que feebar moom boo comprendre nu mu demee nu mu tëddee xeex ko du jafe mais aussi accepter feebar bi ba dalal sa xel nangoo jël traitement médecin bi lu am solo la te suñu problème yépp ñun médecin yi ci tension jabet mooy bañ a traitement bi parce que boo ko respecté problème dootul am rendez-vous yi day soree nga bañ koo respecté problème am léegi rek bi may takk euh, suma bagage ba ne maa ngi dem Touba am na ku ñëw tëdd dugg ci kër gi tëdd foofu di ma xaar ma génn ne ko lan la mu tàllal ma nii loxo bi ma ne ko loxo bi lan la mu ne ñetti fan a ngi nii nelawul parce que benn taaba ci commencé mais tab bi day yokk de jour en jour léegi man xam naa ne diabétique la ma ne ko mais est-ce que dem nga hôpital mu ne noonoo boobu ba tey demuma hôpital parce que ragal naa dem hôpital ñu yokkal ma garab yi wala ñu xotti suma tab bi ma ne ko non diabétique loolu mooy problème bi diabétique du yor tab naan damay fanaan ak moom tey moom jurbel la nekk jurbel dong mu ne ñetti fan ñeenti fan a ngi nii mi ngi tàbbi du ma nelaw guddi léegi nag jaaxle na juste bi may jël sama bagage bu excité moo fa 10 quinze minutes pour ñu xool ko bindal ko antibiotique ne ko demal hôpital te li ma ko njëkk a waxat li ngay def wóorul parce que euh, diabétique boo xam ne dafa yor taab c'est une urgence pour ñu donc dañuy insister ci ngeen comprendre lan mooy indi tension parce que ñu bëri dañ ko comprendrewul moo tax ñu ñu foog ne am na benn pilule wala benn garab boo xam ne boo ko jëlee mu deñ tension lan la touché en réalité moom moo touché vaisseau yi ngay gis nii vaisseau yu xonq yi lépp lu xonq mooy artère artère ci boppam moom mooy feebar bu tension amee léegi ku nit ku nekk am na pression artérielle bu ñuy natt ñun ak machine pression boobu dafa ami chiffre su ko weesoo nanguututa wàcc loolu mooy hypertension artérielle hypertension lu tudd gis nga ñu koy tuddee la tueuse silencieuse pourquoi parce que day attaque organe yoo xam ne du question sidit gi muy attaqué de rarement lay solal sidit bi ba problème am dëgg mais li muy indi mooy problème mu yuur dinaa ci ñëw problème mu xol problème mu rein roñoo mais ñett yi boo ko xoolee bu baax daanaka ñoo yor nit yuur c'est évident cœur c'est évident rein aussi mooy usine bi nga xam ne moom mooy moom mooy jël déchets yi génne ko ñett yooyu nag feebar bu koy attaqué xam nga kii c'est une maladie sérieuse moo tax kenn waru ko foyee mais ñett yi de manière claire boo fajul tension bi moo indi problème heureusement prévention heureusement traitement efficace léegi ñu xool jéem a sellal schéma bi ñu extraire vaisseau yooyu nekk à côté bleu yor yor deret léegi nag lii moo yor yii ñoo yor tension te bu tension xasee ba installé wu sax koo ci natt pression rek dafay yéeg bari foo ko mën di natt nag moo tax ñu koy natt ñun fii parce que médecine moom loolu lañu lay posé mën nañ koo natt fii aussi bëri na yeneen endroit yi ñu koy natte mais li gën a simple natt ko fii walla fii boo ko nattee mu yéeg joxe yenn chiffres yi may indi léegi lii du du ñoom ñoo feebar ñooy veine yi yooyu ñoom dañuy recueillir deret ji rek delloo ko ci ay place mais artère bi nga xam ne mooy yóbbu ñoom ñoo feebar léegi lan moo tax artère yi c'est di indi di am tension c'est que artère dafa bokkut ak ven boo leen comparé nii lañ mel kii schéma médecine la mais ku xool ndànk rek attention di nga seetlu différence bi différence bi mooy lan fii la deret di di jaar fu rose fii ci ñoom ñaar ñëpp gis ngeen ni fii forage bi moo gën a yaatu fii par contre euh, mur bi mur bi nga xam ne moom moo yor artère bi avant ngay gis fi deret ji di nekk foofu fii la ëppee doole boo ko xoolee lii mooy mur bi mur bi mur bu ñu renforcer na te yàllaa ko renforcer boppam léegi nag li mu ko renforcer mooy tax léegi-léeg boo amee ay problème mu mode de vie wala nga donn ko tension bi muy def day élevé mais yàlla juumu fa parce que li mu ko renforcer moom mooy tax aussi nit mën a dund maanaam yii ñooy jël deret ji génn ci xol bi yóbbu ko ci organe ya lu organe sori sori mu jox la sa wàll kooku nag bu tuyoo bi amul doole euh, deret ji du mën a nekk ci egg ca organe yépp na mu ware te pourtant bu génnee en quelque secondes la war a dem ci organe yépp day yéeg fii egg ci baaraamu day ba mais pour mu egg fa tiwo bi ko yóbbu dafa war a am doole bu amul doole deret ji song ko day tawee ko bu tawee ko deret ji du dem moo tax yàlla defaroon ko mur bu am doole bii mais nag mur bi ci la feebar bi di jógee pour simplifier bu bu tension bi bëree ci mur bi bu bëree ci mur bi rek mu feebar léegi niñ koy faje pour simplifier comme mur bi dooleem dafa dafa bëri da ngay jox garab goo xam ne day wàññi doole mur kese <laughs> loolu rek la nag li nit ñi di bëgg a ragal garab yi yëpp parce que ñu bëri dañ naan ñoom dañoo ragal garab yi mais léeg-léeg aussi c'est parce que comprendre uñ lu garab gi di def moi je peux comprendre que di jël ab médicament tous les jours nit ki bu comprendre mën na ragal garab bi ñu bëri dañoo comprendre mais bu ñu leen expliquer ñu comprendre mën nañ koo nangu alors même chose fii boo leen comparer nii la tëddee gis nga mur baa ngi nii bu contracté woo di sànni deret ji fu sori nii lay mel bu relâché woo nii lay mel fii nga jël yeneen façon ar vaisseau yi nga gis ne bokkut ak moom seen mur yi ñoom du ñu yokk seen pression par contre artère bi day yokk pression yu mag yee mag nga xam ne mooy tuyau yu mag yi génne ci château d'eau bi château d'eau bi fii mooy xol bi seen bos rëyul mais yi ci diggante bi nag di véhiculer deret ji ñoom ñoom la seen mur di am doole ñu natt ko parce que pour xam baax na ak baaxul aussi amul nattable amul aussi di deviner médecin du devin médecin moom day seet natt ne lii moo xew mais mënoo xool nii rek ne ko amee nga tension non loolu moom amul ci médecine muy aide soignant ba muy médecin lu mu spécialisé spécialiser doo xool nii rek ne da nga amee tension même bu complication amee nga xalaat ne tension la da ngay natt pour ne lii tension bee ko indi ñun nekkuñu ci domaine yooyu fii da ngay natt boo nattee tension bi xool ko ñu ne la bu dee un adulte maanaam ku pa passé 18 ans jëm kaw tension diggante bii la war a nekk su ko génnee nga ne kii kat am na problème mu tension chiffres yi nekk nii ah bu no bu dee nit koo benn jafe-jafe 120 80 millimètres de mercure ñu war a def raccourci ne 12 8 ñu ci bari ci yéen loolu lañu jàpp léegi nag ñu d'accord ci ne bu ëppee cent quarante wala mu ëpp huit virgule cinq dugg quatre vingt di yéeg nga ne kii amee na tension nañ ko surveiller man ngaa bind garab ci saa si man ngaa surveiller rek loolu dinañ ci ñëwaat boo timis ji dina dugg bu ñëwee vous nous direz comment faire parce que timis jaa ngi jege si foog naa dans combien de minutes 47 laa yor donc dans 5 minutes parce que du jeex dans ci kii bi de du jeex ci dina des parti jabet bi épidémio élevé gis nga fii xoolal chiffres yi Sénégal yii moom ñun ñoo ko natal suñu bopp parce que ñun suñu laboratoire bi ñuy defee suñu gëstu léegi dañ ko orienté ci tension jabet ak seeni complication te laboratoire bu mag la léegi bari ne trente personnes yu fay xëy seen xëy yépp ci lii la alors ñu natt ko Dakar muy 25 pour cent c'est élevé biñ ko njëkkee wax ñëpp doon xulli bët di ñu xoolaat naan mais ñii est-ce que ñu vérifier partout dem daal le Ferlo dem Dakar dem saint luy loolu mu am oui ñu arrêté waaw suspendre julli waaw gis nga vingt cinq pour cent à Saint-Louis même chiffre que Dakar nga dem en zone rural 12 pour cent nga dem Thiès Ferlo donc jur Diourbel ak Touba certainement ñi ngi ci zone bi wala ñu ëpp ko sax parce que Touba est très urbanisé ñi ngi ci vingt pour cent certainement docteur Dieng dinañ ñu ci indil léeg-léeg ñu xool facteur de risque yi. mooy lan yi nga xam ne boo ko dajalee war nga commencer def attention wala bu ci benn amee ñaar nga def attention nga dem ñu surveiller parce que lépp question surveillance la ñi quarante cinq ans ça veut pas dire que ku am 18 ans du am tension mais ñi ko passé ñëw ëpp risque ñiy tux heureusement l'islam affaire tux positionné ci clairement heureusement dëkk bi moom moo ci gën a encore euh, précis radical parce que baaxul am yaram bañ a yëngutu dyslipidémie cholestérol yooyu nga amee diabète boole koog moom wala famille bi amee tension wala ngay lekk xorom lu bëri lii beneen problème la dinañ ci dellu si nga ndam problème la Sénégal je crois que ci liy gën a indi problème yi la bokk ak stress di liggéey loo xam ne dafa bëri stress maanaam lu lay indi jaaxle wala boog génétique génétique bi aussi am na saa il faut être d'accord que génétique bi am na bu xasee ba boo xam amee jeune bi nga xam noo koy surveiller je crois qu'on va s'arrêter la pour euh, parce que jotul SG jot na timis bi jot na on on arrête pour euh, julli après ñu eggale na am temps am quelques question quand même balaa rencontre beeg étudiants yi alors léegi euh, question surpoids bi maanaam euh, bëri yaram mécanisme bi c'est très simple nit bu dépassé poids bi mu war a dépassé poids normal la ngi nii dinaa ci revenir li li nga xam ne lépp dafa yokk te waru ko woon am ci poids lu ci bëri day transformé wu nekk ci suukar yi ak graisse bi loolu nag bu surchargé yaram wi mën naa facilité hypertension mën naa faciliter jabet loolu moo tax surpoids baaxul am poids normal alors poids normal maintenant c'est facile dafa am benn formule bu koy calculer mooy le le poids divisé par la taille au carré poids bi boo yëgee ci balance bi mu jox la 60 kilos nga nattu nekk 1 mètre 60 nga jël 1 mètre 60 au carré boo defee rapport bi moo lay jox benn chiffre chiffre bi bu passé 25 rek diggante 25 ak 30 yaa ngi surpoids su passé 30 obésité dugg na donc c'est très facile ku nekk mën na koo defal boppam ah divisé par euh, la taille au carré boo ko passé commencé régime commencé sport mu duggaat normal donc c'est pas difficile voilà hypertension Dakar mi ngi nii lii courbe bi li ci am solo rek mooy lii vingt neuf ans vingt ans vingt neuf ans yi sax mën nañu développer hypertension parce que loolu moom question la buy ñëw fréquemment waxuma laa nag cinquante ans yi gis nga cinquante ans yi ñoo ëpp mais nekk ndaw du nga mën ko def alors léegi médecin boo ko attaqué woon nii rek médecin boo attaqué mu jël la tension jël ko contrôler ko contrôler waat ko léeg-léeg sax ñun nit ñuy def au lieu ñu nekk di ko contrôler da ngay wax malaat bi mu wut benn carnet dem këram di jël lu tension bi lu mat indi semaine indilaat la ko. boo nekkee ci chiffre limite yi nga xam ne da naan est-ce que du ragal hôpital beeg jaaxle moo ko indi mu nekk ci ay quinze neuf quinze neuf et demi. au lieu ngay commencer traitement bi mieux nga ne malaat bi demal nga jël ko une semaine indil ma chiffre yi moo xool xam nga loolu moo gën a wóor parce que traitement booy attaqué la un an aussi booy bu ngeen xam ne kenn du ko attaqué nii rek ci lu yomb da nga koy vérifier ba wóor la ce qui fait que bu boo boo ñëwaatee ñu ne la amee nga tension malaat bi ne lan moo ko indi lu ci bari li ngay réponse bi gën a fréquent da nga naan HTA primitive mën naa doon ci sa dund mën na doon ndono ci yooyu ngay njëkk a ci yooyu ngay interroger nag xool malade bi est-ce que mi ngi ci yooyu est-ce que mi ngi ci ndono wala boog ci dundam li muy yëngutu bariwul day lekk xorom li muy lekk fruit bariwul bu du bu duggee ci catégorie bii rek moom la ñuy wax HTA primitive am na yeneen nag yu ñuy gëstu ci lu gaaw yoo xam ne moom wóor nañu ne bu ko malade bi amee day indi tension te tension boobu nag la ñuy faj radicalement yooyu la ñuy guérir yooyu laa doon wax maanaam yooyu bu dee mu indi bi suñu fajee la ko indi tension ba dem yoonam du soxlaati di di bind ay garab toute la vie mooy sténose de l'artère rénale artère rognon bi am fu mu seere am yenn feebaru rognon walla ay tumeur maanaam yenn façon euh, tumeur yuy nekk ci surrénal yeeg yeneen partie yu ko mën a indi yooyu buñ ko opeere malade bi dafay wér perek voilà léegi boo xoolee nii lii indi problème bi lan la fii artère bi mu ngi lutter tout le temps gis nga mur bi ma leen doon wax mi ngi nii deret jaa nii après day mujj commencer changer mel nii mën na dem ba fatt fatt bi nag mooy indi problème yooyu ñu doon wax mooy indi accident vasculaire cérébral mooy indi problème mu xol bi aussi gis nga ko nii dafa fii la départ fii baaxoon na fii mur bi c'est devenu très épais fii changé na com complètement fii nag fatt na bu fattee nag daal di indi benn jafe-jafe signes yi lan la signes yi moo gën a am solo parce que li ñu seetlu mooy malade yi nga xam ne ñoo amee tension am problème complication walla sax léeg-léeg problème amul mais tension bi élevé na yoroon nañ signes yi ay ati at taxul ñu faj wala wala diagnostiqué wuñ ko pourtant signes yi c'est simple céphalée mooy maux de tête maux de tête tension souvent en casque lay doon ñii lay jàpp fii léeg-léeg mu gën a bari fii mais di def saa yoo yeewoo sa bopp di metti tous les jours demal ñu nattal la sa tension maux de tête xam nga loolu compliqué wu baisse de la vision bu gis bi commencé lëndëm surtout muy lëndëm lëndëm bi di gën a yokk mu gaaw wala muy lëndëm ak a bàyyi day flou visuel bi attention surtout ñoom ñaar bu ñu àndee céphalée plus trouble visuel nopp yi di riir moo de tête nopp yu riir nopp yu riir di di sab mën na doon tension vertige miir mu sax léeg leen nga am coono te defoo lu la war a indil coono bi mën na doon tension lu ci bari nag ci suñu réew yi stade complication la mais li wóor aussi ñu xam ko mooy balaa muy indi complication yi nga xam ne moom lay wax léegi yii malade bi yor na ko ay weer walla ay at ay weer walla at c'est exceptionnel nga def diagnostic hypertension ci nit ne ko yow sa bopp bi depuis quand lay metti te waxu la ay weer c'est rare mu ne la nopp bi depuis ay weer mi ngi riir c'est rare aussi mu mu ne la bët yi ci fan yi rek la def naan la yàgg na ay weer a ngi ay at donc problème am na mooy jañu si tardif bi mën nañ ko moytu te buñ ko teelee jañu si diagnostiqué complication yi lu ci bari yàlla mën na def lu ñëw alors ñu def benn bilan mooy tax aussi bu la médecin ne am nga tension li ci saa si daf lay bindal bilan c'est normal bilan bi lu muy vérifier yii la mën naa jàll rapidement comme temps bi dafa seere léegi alors léegi complication yi lan lay indi tension bu sax di yéeg egg ci yenn chiffres yi 17 18 20 dañuy gis sax 20 22 ci suñu gox yi 24 sax léeg-léeg nga gis ko kooku complication lay indi kooku li muy indi complication xol bi mooy li ñuy wax les cardiopathies ischémiques maanaam euh, siddiitu xol bi siddiit yi indi deret bi ci xol te xol dafa soxla deret parce que li muy liggéey dafa bëri 65 battements par minute booy daw mu dem cent cent 100 120 quarante kooku day soxla deret yu bëri léegi nag tension bi li muy mujj li muy def mooy day fat siddit bi indi deret ji ci xol te loolu la xol gën a bañ xol amul réserve en énergie bu siddit bi fattee rek mu indi jafe-jafe loolu muy indi les moor yu gaaw yi ñu naan ah moom kat dañoo ñëw rek fëgg ci suba yeewut pourtant fii la nekkoon di waxtaan dafa doon julli sëgg rek yem fa wala mu dugg dans la coma nelaw yu bon yi loolu karjopati ischémique la moom mooy sidit gu fatt gi dañ koy seet kooku aussi bu nit amee tension nga ne ko defal électrocardiogramme parce que comme ni ko ñu baax ñi di waxe yàlla soxorut feebar yu garaaw yépp li ñu seetlu ñun mercin mooy benn du ci xëy faat nit ci saa si yóbbu ko non non yàlla dafay avertir doomu aadama gis nga cardiopathies ischémiques yi balaa ngay tëdd rek bañ a yeewu wala nga doon julli ne këlëb wala nga doon dox daanu mais avertir na la plusieurs fois loolu lu doy waar la lu yàlla di defal doomi doomu aadama c'est balaa muy xëy arrêté kër bi mais jox na lay signal ba tey defoo dara wala comprendre te bari na alors li muy def c'est très simple ma expliquer leen ko mi ngi ci léegi sax ci whatsapp yeeg internet bi côté gos bi cardiopathie ischémique noonu lay feeñe maanaam fii moo lay metti parce que xol fii la nekk léegi ni muy def douleur bi nii lay def topp fii ñëw ci loxo bi képp ku sa fii di metti léeg-léeg topp loxo bi du yoon le plus souvent bu ñuy def électrocardiogramme bi di gis seen yi le plus souvent lu ci bari it ñi dem ba seen kër bi fatigué sonn ñu naan dañ leen di def appareil yeeg de nelaw na yewwaat avant boo leen laajee ñu ne lii docteur man suma fi daan na métti jëm nii mais bu ma toogee tuuti mu sedd ma toog ma seeti docteur mais lii kenn du ko foyee douleur fii jëm fii kenn du ko foyee ñu bari nag dañ koy foyee mais c'est une alerte alerte bu yàlla di defal doomu aadama la beneen bi mooy AVC AVC mooy paralysie yu bon yooyu di jàpp ak wetu lëm walla nelaw yu bon yi ñaar yi la bo la ànd dafa bëri ba nga xam ne ñu bëri bu leen AVC dalee rek dañu naan tension baa ko jàpp mais balaa leen di AVC di dal installé foofu it lu doy waar la fi yàlla di def may ko doomu aadama c'est que AVC c'est exceptionnel mu xëy rek attaqué nit paralyser ko completement paralysie bi nag moom leer nañ ni lii lay jàpp genn wàllu côté le plus souvent côté ndeyjoor walla côté càmmoñ boo nekkee ndeyjoor maanaam nituk ndeyjoor di bindee ndeyjoor di jëfandikoo sa loxo ndeyjoor bu sa côté ndeyjoor paralysé doo wax wax ji day paralysé parce que yóor gi moo am problème loolu la yàlla bind nit yóor gii mooy contrôler côté bii yóor gi mooy contrôler côté bi yóor gi yor wax lu ci bëri ci nit ñi droitier yi moom c'est sûr fii la nekk côté bi ce qui fait bu bii amee problème un da ngay paralysé deux doo wax loolu nag problème bi bii indi dafa nuroog feebaru feebaru wolof fi ce qui fait bu lay jox signaux yi xam nga signaux yi nu muy dikkee balaa mu lay paralyser complètement da ngay wax nii rek ba yàgg nga arrêté mënatoo wax maanaam ma nekk di def conférence bi AVC bu ndaw bi dugg ma mënatuma wax ma leen di xool nii quelques secondes wax ji ñëwaat benn yoon ñaari yoon ñetti yoon demuma hôpital AVC bu mag bi ñëw léeg-léeg day paralyser benn côté rek kanam gi léeg-léeg mu paralyser loxo bi bàyyiwaat ko loolu nag ku ko am yàlla mi ngi lay baaxee ay signaux la lay jox mu ngi naan la attention boo demul nag foofu la AVC bu mag bi di ñëwee li ko indi mooy lan siddiit gi day fatt fattarñi ko fatt fattarñi ko fatt fattarñi ko ba mujj fatt su fattee nag côté bi day bañ complètement te loolu moom musiba naaru lay parce que faj bi dafa gudd gudd gudd te le plus souvent day bàyyi ay séquelles muy AVC nga gis ne boobu it complication bu garaaw la mais nit ki bu vigilant mais bu garaaw bi mën na bañ a agsi gis nga xol bi bu garaaw bi mën na bañ cerveau ba garab bi mën na bañ ñëw parce que yii yëpp dafa am garab léegi am na garab am nay traitement yoo xam ne bu ñu la ko joxee du ñëw ne néphropathie rein bi roño muy troisième complication moom itam insuffisance rénale lay indi te insuffisance rénale dégg ngeen problème yi mu doon bu rein bi demee ba mënatul a filtrer dañuy obligé dialyse dialyse gis ngeen ni mu compliqué état bi def na ci effort yu bëri mais ba tey dafa jafe yenn artères yi nag dañuy fat muy arteeru tànk muy arteeru biir muy arteeru ndigg bu fattee indi yeneen jafe-jafe lii moo tax ñu ragal tension du chiffre bu élevé bee tax ñu ragal ko déedéet li tax ñun ñu bañ ko ragal ko mooy complication yi muy mu ngi nii mën naa jàll rapidement que ces vaisseaux yi ma doon wax ne ñooy fatt ni ñi ngi nii bu ci fatt rek mën naa yóbbu nit bu ci fatt mais lu ci bëri du xëy rek fatt day fatt fattat ñi ko ba mujj fatt nag ñu ngi nii ñoom ñëpp xam nañ fi ñu nekk léegi da ngay def coronaro ñu ne la gis nga fi fatt lu ngi fi man yaa trois mois rek am na benn malade ci lii rek la alerté mais moom dafa ko yor euh, euh, muy métti ci ngoon si arrêté métti waat ci ngoon si arrêté mu ñibbi doom ji doom jee ko sauvé de doom ji nekkoo ko papa la yow sànq ba tey jàppoo mu waxtaan ak ñun mu ne man daal ci suba ba léegi su mu fii day métti jëm nii comme xale yi ñoom léegi ils sont alertes mu ne ko gis nga wol professeur muy Gueye parce que lii ngay wax dafa mel ni problème mu kër la mu woo ma ma ne ko jubalil la Dantec mu dem la Dantec ñu defal ko coronaro bi gis artère bi fatt ñu fattar ci ko ci saa si da ngay daal di wér pelek te bu ko fanaanoo woon mënoon naa dem bu ko yàlla tuddee te loolu c'est fréquent c'est fréquent laa la wax donc attention après mën na dem yàq ci xol bi électricité bi parce que xol électricité lay doxe bu dee ci yóor gi c'est très simple gis nga ni muy def yóor mi ngi nii fatt baa ngi nii lii mooy indi paralysie yi lii aussi bu arrivé daw leen faju ji gaaw leen dem service su docteur Dieye docteur Soura mu jox leen garab yi war parce que léeg-léeg paralysie bu ndaw boobu bu la joxee garab mu régressé mais deuxièmement du ñëwaat. te ñun ñëwaat bi la ñu gën a bañ mi ngi nii paralysie bi tension boobu élevé nag moo ko doon wax léegi dem ay 22 24 cinq moom li muy def moo gën a bon gis nga fii dafa fettloo si bi bii nag mooy AVC bi ñu gën a bañ ñun parce que deret ji day daal di génn accumulé wu ci cerveau bi yàq fa lu baree bari ñii lu ci bëri séquelles yi day élevé lu ci bëri sax dañ leen di perte ñoom la ñuy wax AVC hémorragique muy ñaari AVC ischémique ou hémorragique évolution baa ngi nii ñett yi kenn bëggu ko yóbbu mu gaañu wala boog nga paralyser définitivement dootoo taxaw wala nga taxaw ba pare am béquille par force complication des AVC au niveau cérébral traitement bi lan la régime bu ko kenn foyee mais aussi bu la bindalee garab nga nangu ko jël très rapidement mi ngi nii loolu la ñuy schématiser fii régime yi bàyyi xorom si activité physique lekk ay légumes mais surtout surtout bàyyi yi nga xam ne sax dañoo am chance yàlla def na dañ ko tere mooy le vin et le tabac loolu moom alxuraan dañu cee baaxee religion bi baaxee ñu ko parce que yëngatu da koy conseiller mais aussi interdiction de l'alcool et du tabac formel ñett yooyu déjà boo ko génnee gis nga ne facteur de risque yi des bareetul ba pare ne la yëngutul que boo lekkee ba pare jógal def quelque part mais di boo defee activité physique ba war njariñ dina am tension yi koy faj léegi bëri na xam nga lii déjà dama concentré jël famille yi kese du par garab de famille yu garab yi laa jël bu ci nekk fi ne mën naa ci citer ay vingt garab yu ci nekk ligne bu nekk yii yëpp dañ koy faj bu ci médecin bi choisir benn nag ne la dee ko jël dina franc yow parce que dina la guurub dund la nangu koo jël moo gën problème mu paralysie yeeg problème mu xol bi di arrivé médicaments yi toujours ñu ngi nii alors li ci am solo garab médicament yi <coughs> du caageenu ngay téye tur beeg yooyu mais li ci am solo bu la médecin bi ne tous les jours nga koy jël noonu la. loolu aussi dañuy direct ak nit ñi loolu moo am loolu la lu pays ba développé développé bu ne lee garab gii benn yoon par jour la mais benn yoon par jour ngay jël loolu la loolu la amul benn solution ne pas interrompre le traitement sans l'avis médical te loolu bari na fi moom. garabu tension kenn du ko wàññee ko arrêté fekk médecin bi santu la ko boo koy def muy yéeg yéeg bu gaaw a gaaw a gaaw indi complication yi donc attention bu la sonalee wala nga gis ay signes effet secondaire demal jël rendez-vous médecin bi wax ci ngay xool sa tension léegi appareils yi bëri nañ sakkan nañ parce que ñëpp ko mën a kii ba pare it moytu yiñ ciy wax yi ñu ciy wax nag ñoo ñu gën a sonal loolu ñuy wax rumeur yi que attention dégg naa ku jabet bàyyi suukar complètement baaxul attention euh, euh, kii kat euh, tension kat nee nañ boo wàññee xorom bi ba mu egg fii baaxul yooyu daal dem waxtaan ak médecin bi gën a wóor rumeur yi nag bari na ci torop torop torop torop mais li am rek mooy li ñu leen di wax nii jël garab yi alors prévention bi mooy moytu yi je passe mooy boo amee quarante cinq ans vraiment boo boo doon tux nga arrêté ko tux moom kenn waru ko def mais boo ko amee nga arrêté ko gis ku am cinq ans muy tux man saa yu ma ko gisee dama koy arrêté toog ak moom jaral na ma def fa une di wax ak moom moytu am yaram di yëngutu euh, graisse gi cholestérol sport ba pare éviter lekk lu niin loolu it beneen problème la fi sekkeen yeeg njaween yi boo ne leen bàyyil côtelette ñu ne docteur li tax may bàyyi côtelette nga ne leen bër bàyyi ko ñu ne la li nga ne leen ginaar yi boo koy la jël bu laal der ba ñu ne der ba kat ci li ci gën a neex la bokk et cetera et cetera mais xanaa balaa muy neex nga fekke ko mu gën a wër boo amee jabet nga xam ne ku am jabet ak tension ñaari risque nga am bu dee sa famille dafa amee tension nga gën a teel a moytu fekkee di xaare cinquante ans soixante ans di surveiller yow commencer surveiller à partir de vingt ans moo gën a wër ba pare commencé sport très boo ko defee yii mooy facteurs yi ma doon wax ne mën nga koo doon te dugg am nañu doon euh, tension doon jabet mais dañoo xeex ba dugg leen kooku ñun am nañ ci exemple yu dul jeex li ñuy def régime bu wóor ak sport bu doy sëkk moytu xorom di moytu yenn yenn stress yi génétique bi moom kenn mënu ci dara jabet pour aller vite parce que diabète day recouper ak tension mais moom itam lu jar la ci yenn poñ yi loolu lay def alors jabet mooy suukar su yokk ci deret noonu la grave ni tension grave la grave moom itam gisal comme lu yàlla di def day attaqué xol di attaqué vaisseau yi di attaqué roño di attaqué yuur dolli ca nag moom day attaqué neer yi loolu sax mooy indi problème yi li tax ñu naan tànk bi yàqu na dañ koy dagg balaa muy egg ci gangrène c'est que moom def cee yokk neer yi nag loo tax mu bon bon trop trop trop prévalence bi xaw na élevé 10 pour cent mais moom itam bu ñu ko jekkoo médecin yi faj ko na mu waree malaat bi nangu loon suivre mais amatul problème moom ñëpp a yem li koy sonal rek mooy régime bi mais leneen sonalutu ko régime bi moo koy xaw a sonal mais fi mu ne am na diabétique yoo xam ne dañuy kontaan di leen témoigner loo parce que ils ont 90 ans ils ont 92 ans bi ñuy am seen jabet 40 ans la ñu amoon ça c'est extraordinaire man ñi ma ci am bu ma leen gisee ñu ñëw consultation dama naa ne boo génnee may ma 10 minutes nga toog ci saal boobu waxtaan ak ñi fa toog te euh, am amuñu benn problème dañoo nangoo faju alors glycémie bi moom la ñuy natt deret natt ko ci benn toq wala nga def prélèvement de sang am na ay critères yu leer yoo xam ne boo ko gisee glycémie bi yéeg wala nga vérifier ko yeneen façon glycémie bi mais en réalité bii la ñuy def glycémie à jeun bi ngay natt su passé 1,1 nga ne mi ngi def ay traces su passé 1,2 1,3 mi ngi ci jabet dafa war a des toujours inférieur à 1,40 gramme par litre léegi bu ñu nattee nii malade bi nekk à jeun douze heures loolu moom laboratoire yi xaw nañ ci strict au minimum huit heures lañ doon wax mais ñu bari léegi ba dañ naan la defal quand même dix heures pour être sûr bu dee cholestérol def ci bokk ñu ne la douze heures su passé un virgule vingt six kii dugg na ci diabète bi parce que indi avertissement fermeté moo gën ngay jéem a comprendre naan ko yaa ngi ci trace yooyu bu dee contrôler nga mu nekk passé 1,2 dugg na ci diabète bi peut-être nag diabète boobu garaawagul parce que régime réglé na ko sport réglé na ko soxlawul médicament te loolu it lu jara xam la am na diabétique yoo xam ne soxlawuñ médicament. alors signes yi lan la moom itam gis nga feebar yi ni ñu graawe te sonal ñu mais xool seen signes yi ni mu simple polyurie maanaam di saw lu bëri. jabet loolu lay indi pourquoi muy saw lu bëri parce que suukar si dafa concentré. ci deret ji léegi nag organisme yi ni muy réagir mooy éliminer ndox mi yor suukar soosu moo tax muy saw lu bëri polyurie kuy saw lu bëri naan lu bëri muy si comme da ngay saw lu bëri ndox da lay manqué ngay naan lu bëri polyphagie lu ci bëri ca tàmbali ba aussi day bëgg lekk da koy xiir ci lekk ñett yooyu jabet noonu lay tàmbalee jeex bi sax bokku gu ci jeex bi après lay ñëw mais diabétique moom saw lu bëri la képp ku seetlu ne li ngay saw dafa bëri surtout du période du sedd ngay jug guddi di saw attention boo ci boolee di naan lu bëri di gaaw a mar yaa ngi dugg surtout nag bu dee da ngay topp di xiif rek ñett yooyu boo ko defee demal def sa sukkar 1 virgule 30 un virgule quarante un virgule cinquante jabet bi installé na la rapidement kii sax je vais passer c'est la physiopathologie temps bi mayu ñu ko ma jox leen quand même organe bi nga xam ne fa la problème bi jógee di organe boo xam ne boobu léegi maa ngi wër turam ci wolof docteur Dieye dénk naa la loolu non c'est difficile je sais <laughs> pancréas dama koy dénk gars yi mais toujours gàddaam la ñuy wax mais du gàddaam gàddaam rat la mais pancréas moom ren moom laa attaqué 2018 bi di ko wër parce que man damay def noonu di jël benn organe rek topp ko mais ba tey trouvé guma tur wi te boole nañ ma ak ay ay wolofu fon yu yu mag a mag yoo xam ne dañu yaakaaroon ne bu ma leen woo rek ñu wax ma tur bi mais bi ma leen woo trouvé wuñ alors kii kii moo feebar ci ci jabet moom lu muy jox lu muy joxe insuline yàlla daf koo dénk te loolu mooy liggéeyam muy régler suukar si rek. te loolu lu doy waar la mën nañ ci def conférence parce que booy gis yàlla ni muy ni muy aaree yaram jël ay organe dénk leen ay mbir lu doy waar la maa ngi leen doon wax centre bi nga xam ne wax rek la ko dénk yeneen centre yi yëngal loxo bi rek la leen dénk yeneen yi deel nekk usine yaram wi la leen dénk kii nag li mu ko dénk mooy contrôler suukar si bu suukar duggee xool ko su bëree wàcc ko su feebalee bu ko wàccee parce que boo ko wàccee nit ki xam mooy hypoglycémie moom mooy liggéeyam mu koy def ci insuline léegi nag bu insuline bi amee problème wàññeeku foofu mooy dugal diabète moo tax nga gis ni yenn diabétique yi régime médicament mais après insuline lañ leen di mujj bindal. alors nu muy demee pour ñu comprendre ko vite ba adapté wu boo paree ci ñam lekk aw ñam mu dugg gis nga insuline bi nu muy def. bu ñam wi indee suukar rek parce que moom yàlla daf ko may day surveiller suukar dafa am ay capteurs sukkar yu koy wax fu sukkar si toll ni ñu koy nattee ñun médecin naan 1,2 la moom mii noonu la xamee ñaata moom bu dee 0,8 sax xam na ko bu dee 0,9 xam na ko te moom du appareil mais loolu loolu mbiru yàlla la léegi bu sukkar si duggee jóge ci ñam wi moom da koy récupérer ci deret ji daan lii dem leen ngeen liggéey ci suux wi lii ëpp na nañ ko denc parce que kii day soog a pare lekk nan na ab genn par exemple bouteille bi nan na ko ci boisson boisson bi bëri sucre bu duggee ci deret ji mais yaram bi soxlaagul suukar si yëpp insuline bi mooy récupérer li ci ëpp dem denc ko fenn ci suux week fois bi bu ñu toogee tuuti ba mu paase yaram wi soxla ko gis nga ko contraire bi lay def mu libéré suukar si libéré wu na génn dem defi liggéey bi ce qui excès du am soo normalé parce que fii li nekkoon excès capté na ko dugal ba nga soxla ko mu libéré wu maintenant gis ngeen ne bu insuline amul bu doyit problème am jabet loolu rek la c'est très simple alors mu am ñaari jabet insulino dépendant non insulino dépendant ça je vais passer dem ci complication yi alors ñetti com ñaari complication yu mag benn bi mooy nelaw yi bii la ñu gën a ragal médecine aussi boo koy jàng dinañ fexe ba nga ragal lii moom xam nañ nu ñu koy defee maanaam suukar si yéeg indi ay complications mu jox la coma diabétique nelaw yi di dugg nelaw yooyu lim lay indil tàyyal di óbbali après nga mujj bu ñuy wax ak yow doo répondre bu baax xaw a gëlëm ba yàgg nga nelaw complètement bu ñu la bëggee yeey doo yow bu ñu lay dompat nga naan un di jëm a mais dugg nga daanu comment mooy nelaw yu bon yooyu kii daw dem hôpital kii lu yàlla di def médecin yi maîtriser nañ ko boo ñëwee eggagul yenn stade yi ñu jël la en charge léegi-léegi sax stade yu garaaw lay doon mais bu ñu la jëlee en charge traité la na waree mais da nga ciy génn bii beneen bi la mais bii moom erreur la souvent erreur u malade wala erreur ci garab yeeg yooyu mooy coma hypoglycémique bi maanaam contraire nga am diabète di moytu suukar si di ko moytu di ko moytu jël benn garab mu wàcc ko loo ëpp nga def hypoglycémie moo tax régime dañ koy expliquer malade bi mu am ko foog naa sax lii moo tax ñenn ñi naan mais il paraît que bàyyi suukar completement baaxul non dañoo comprendre diabétique moom dafa war a bàyyi suukar mais bu ñu ko joxee médicament aussi waru koo manipuler di yokk dose yi mais aussi bu xiifee warul jël médicament bi moo tax ñu koy expliquer kañ lay jël médicament bi te loolu da koy respecté boo xiifee trop yendu ci liggéey yendu ci xew lekkoo sa suukar faible nekk ay 1 nga jël médicament diabétique bi dalay ko di indil comment loolu moo koy indi yeneen yi mooy complication yi ma doon wax di jàpp roñoo di jàpp der di jàpp bët lu bon la jabet moom lu bon la rek di jàpp siddiit di jàpp kër bi di jàpp tànk yi di jàpp xol bi ak ba pare leneen li ci gën a bon mooy microbe yi dañ lay yeb boo nekkee diabétique le fait que sa deret am sukkar moo tax microbe dañ lay moo tax diabétique ci hygiène dañ koy wax dafa war a set ñëpp a war a set mais ñoom dañoo war a gën a gën a set très vite ñi muy attaque la ñuy wane ni gis nga bopp yuur xol yaram wi siddiit yi baaxul baaxul daal nuñ koy moytoo c'est très simple en réalité mooy fexe ba suukar si du yëg te loolu mooy xeexu diabétique diabétique bu ko comprendre man nga décharger médecin yi ci ay problème éviter les complications de l'hyperglycémie éviter hypoglycémie mooy wesi ba pare di surveiller régulièrement appareil yi léegi c'est très simple ñu bëree ko am régime alimentaire nangoo yëngutu yëngutu day faj diabète kooku moom lu leer la bëri na malade bu ñëw sa suukar yéeg yéeg bu yem kenn du la bindal garab régime sport boo ko defee parce que booy sport suux wi mooy lekk sukkar si te bu ko lekkee sukkar si du yëg ñu bindal la nag léeg-léeg ay médicaments hypoglycémia insuline ak hygiène de vie bu am solo bon stratégie de surveillance mooy le fait que ngay surveiller sukkar bi mais bi je vais passer temps bee ma dul may alors li ñuy def mooy di ko di di prélever sang bi par appareil yi kooku moom léegi c'est très simple amee nga diabète jëndal sa appareil nii ngay defee surveiller sa sukkar nga koy defal sa bopp ñépp a ko man maire yi am 70 ans sax 80 sax mën nañ ko def famille bi nga jël ñaar ñetti doom jàngal leen ko ñu koy jàppale pour muy surveiller appareil baa ngi ne la gis ngeen ko ñépp ko xam léegi c'est très facile méttiwul aussi éviter les sucres invité les graisses activité physique je passe def sport sport boo man du forcément moo tax may def image bi du forcément sport bu intense nii nga xam ne kii c'est de grand footballeur kii c'est un grand lutteur mais dox velo yëngutu corde waaxu foo mënee doxe nga dox fa te ba ñuy jël taxi yooyu la ñuy conseiller boo ko defee suux wi mooy lekk suukar si te day tax suux wi des fa aussi parce que diabétique yi boo leen gisee dañuy maigrir bu complication yi commencé booy booy yëngutu di sport yii yëpp ay mécanisme la yu ma mënoon def ay minute minute mais du ko def mooy tax ba yaram wi mën na sax bañ a changer yenn diabétique yi doo leen gis mukk ñu maigrir dañuy jàpp forme parce que ñi ngi continuer def seen sport xol bi commencé dund na mu ware du am complication gis nga ko booy def dundal euh, siddit yi booy def sport sport nii lay dundale siddit day dundal suux wi di dundal siddit ba pare di pompe suukar si di ko utiliser au lieu ngay nekk di régime di ci sonn yenn sonn yi suukar si day day dugg ci suux wi bon rôle du sport je vais passer mooy sport lu bari mais fii rek lay taxaw tuuti parce que sinon question bi day ñëw euh, diabétique bu mënee dox tous les jours na ko def su mënee vélo tous les jours na ko def bu nee corde tous les jours na ko def bu ko mënul ba mënu ko au minimum trois fois par semaine pendant trente minutes loolu lu ci am solo la parce que man damay interroger fii malade fii ci Touba ak mais ñu ci bari dañ naan ma professeur man mënumaa dox di waaxu mais doxu daagu waxuñu ko daagu moom du faj jabet il faut nga waaxu waaxu bi dañ naan ma après professeur nooy xamee ne waaxu nga mais loolu yëpp xamuñu ne ñun loolu suñu métier la jàng nañ ko ki jóg di waaxu tigi bu defee dix minutes day ñax dina xiixat day ñaq it bu ñaxul c'est que mi ngi daagu ñenn ñi ne moom man kat bu may dox ci quartier bi ñu may interroger ana sa papa ana sëriñ bi damay obligé taxaw wuyu leen mais kon sporto <laughs> c'est très simple booy sport yooyu yëpp da ngay débrouiller ba du ba du am sinon nga def velo sa kër def tapis roulant ba nit ñi duñu la arrêté mais 30 minutes bi mooy li ñu gënal. alors je passe je passe sport bi la woon toujours conclusion. vraiment ci ñaar yooyu nag après man leen a déglu déglu seen question yi mooy li ci am solo mooy d'abord moytu yi ci bari tension jab yi yëpp wax naa leen mën nañoo moytu feebar bi mais surtout mën nañoo moytu complication yi moytu tension bi moytu diabète c'est très simple amul secret du médicament kenn moomu ko mooy sport ak xool li ngay lekk bu feebar bi duggee bul décourager balaa muy neex nga gis benn malade nga ne ko feebar bi nii la demee mu ne la professeur lan mooy risque bi nga ne ko complication yii la mu ne bu soobee yàlla de man lii du ma dal daal di nag décider xeex ak moom ñi ko def ñépp boo ko seetloo problème yi duñu ko am parce que ñoom ci seen bopp ñooy dem ba maîtriser affaire bi seen seen bopp moo tax ñuy communiqué moo tax ñu koy nangu lu suñu temps serré serré boo ñu woo ci lu mel nii ñu ñëw manger sain bouger surveiller sa pression se une fois qu'on est malade nécessité d'élaborer une stratégie nationale loolu moom autorité yi la voilà loolu lañ bëggoon waxtaan ak yow yéen ci mbirum jabet ak tension di leen déglu la ci seen i question parce que am na solo ngeen mën a poser question